sa jeunesse. non encore man je crois man dama def wala bokk dama bokk ci ño xamantene ne japp mm. ni peut-être il n'a pas compris ba tay mm. parce que eh, on né en 2021 je vous ai compris. Mm. ba paré eh, c'est la même chose qui se reproduit dans ce pays. lolu jaaduwul donc ce qui veut dire que euh, Macky Sall fay bax mu def sorti nekkul euh, quand il y a des choses.

crise am fii dans ce pays mm, mm, mm. yow ba légui ken déggu même si euh, jël nañu information yo xamante il y a une il y a comment dirais euh, une diplomatie voilà il y a des choses qui se règlent à l'interne. mais waa APR ñoom nee situation bi tollagul. am naa information tey war na mëna genn wax. amna information tey may que ne Macky Sall il communique avec Ousmane Sonko mais c'est pas par le lien euh, euh, direct. c'est indirect. ça hmm. dit dire que amna ay jegenaale ci Macky Sall am te ne dañuy ñëw ci Sonko. mais batay tey na rek ñeneen tamit ko ci Sonko dem ci Macky Sall. waxtaan am rek c'est-à-dire voilà. exactement loolu la ñuy rafetlu c'est-à-dire que fa ñu waxtan nee la fi toutes les guerres toutes les guerres.

contenu à Albert Royer t'a dit euh, on nous reparle quatre morts exactement sans euh, vie euh, déposée à l'hôpital Dalal exactement il mm. y' a une femme qui a communiqué je crois un médecin de euh, Albert roye c'est mm. pas euh, de Philippe Maguilène Senghor. Il mm, euh, y' a des gens qui ont dit que c'est un il faut ñu dem vérifier morgue parce que ils ont un nombre important ils ne ay jeunes morgue donc quand un médecin de Dalal la taxawee wax ni effectivement ils ont reçu des des corps sans vie. Hmm. Euh, jaaduna notamment tamit euh, ñu statué ci lolu c'est-à-dire que fokk tamit euh, parents yi dem séti ci morgue yoyu parce que on nous signale que y a des cas yoo xam il y a des disparitions. Hmm. donc il faut que ñu dem ci morgue yoyu ci hôpitaux yoyu xol ndax sen mbokk ya ngi foofu. et aussi l'État il faut que mu jël responsabilité responsabilité def autopsie pour ñu xam même si on nous signale que y a des des morts par balle et aussi par des armes blanches il faut que tamit euh, état tamit jël euh, euh, engagement def autopsie bo xamantene day léral day qui ñooñu ci yane anam lañu alors donc aussi euh, Serigne Fallou ma daaneel foofu euh, la violence surtout la violence mm. euh, des forces de l'ordre mm. même si nous avons nañu communiqué def nañu point de presse pour nekk c'est pas c'est pas eux il y a des forces occultes bon nous avons ay vidéos, yi am même bu fekkee ça ñu bëri ci sénégalais yi ñu ngi vidéos, vidéo avons ñi naan ay vidéos commencé wuñu vidéo par le commencement mm. y a on signale la présence des nervis même Moustapha Diop l'ancien ministre commandeur dirais des infrastructure comment euh, de Dakar Dem di mon ma taxaw na le point de presse de F24 mais mom si le procureur l'interpelle il va donner les images yo xamantene les pick-up non matriculés hmm. fal la jëlé euh, départ mom dafa ne japp ni ñooñu ñuy wax ay forces occultes euh, ñooñu ci siège APR la jëlé départ mu ne il a les vidéos il a les images il attend à ce que le procureur lui rappelle pour moi, mu effectivement la tribune là, exactement la tribune au delà de l'audience entre les deux hommes d'égalité que président Macky qui a ki que maître. Euh, ak euh, sëñ moutaha Bassirou Mbacké ma xam Macky a-t-il rassuré sëñ Mountakha Bassirou ma xam Macky nak dalal na xelu ki nga xam ne modi moo moutaha Bassirou Mbacké ministre gu njëkk la tribune waaye avant dañuy daal taxaw tout ici enquête relative aux allégations de l'ex premier ministre Adibou Soumaré convoqué sur l'affaire des 7,9 milliards à Madi Le Pen

Sénégal amul dara bay joxe li que 7,9 milliards à euh, Le il a toujours peut-être elle a toujours peut-être li que a euh, que sénégalais surtout les sénégalais de la diaspora attendez c'est des accusations comme nga hmm. ancien premier ministre bu taxawee wax lu mel ci hmm. Macky Sall. Hmm. Macky Sall c'est le président de la République. maintenant jaadu na aussi ñu woo la section de recherche Woko pour me dem l'air ci loolu. parce qu'il il faut pas aussi donner des allégations yoo xamante ne euh, lalewul ci benn dëgg. boo waxee lu mel noonu. Euh, ñu ngi lay xaar nga andi ay donc aussi euh, voilà marie-marie Le Pen. moom gis nañ ko elle est dans sa logique. même si il fait un deux poids deux manger ça c'est-à-dire que mono taxaw les immigrants les immigrants mm-hmm. euh, africains Tout tout ça ay des sénégalais les modou modou mm. parce que ces ces vidéos ñun le nañu mois. Mm. après ce même Marine Le Pen boobu moo Sénégal di am ay euh, comment dirais ay comment ay rencontre avec les autorités euh, euh, avec le président de la république moo tax ñu bëri jàpp ni que président de la république waru koon recevoir hmm. même si c'est un politique hmm. moom tey moom tamit boo xam te ne mu recevoir des opposants français hmm. comme si ñun suñu opposants yi bàyyeekoo fii di dem bitim réew ñu leen di recevoir foofu mais Marine Le Pen devait être déclarée comme persona non grata en Afrique waxuma la sa Sénégal mais en Afrique parce que une femme tient un elle tient un discours boo est ne rafetoul ko képp koo xamante africain ko parce que euh, c'est un comment dire, discours incendiaire. Euh, euh, oui mais ça y est, un raciste. c'est ça le mot c'est le mot que je cherchais depuis. Mm. c'est un raciste. maintenant mm. sur le mm. cas de Agibou Soumaré. Euh, moom mom c'est un homme d'État. ok il faut qu'on le dise aussi c'est un homme d'État. état bu demee ba wax lolu dañuy japp ni dañuy japp ni il a des des preuves. Hmm. jusqu'à la preuve du contraire. alors le regard mu daal di exactement ak euh, l'aventure aventure des étudiants man kon étudiants yi nag ba ngi si li nga que modi moo di guddi euh, bu bëccëgatul ndaxte jafe-jafe yi nga xam tam ñu ngi koy daal dund fa nga xam ne mooy université bu xam sëpp nak mënuñu daal di jël sen ay bagages porte ba leen daal leen tere mi gu nga le regard Dakar Times mu daal di exactement ak Baye nationale yi itam euh, créé neen sen ay euh, li nga xam ne mooy seen ay cordon comme ni ko Mame Mbaye Niang daal di waxee won que ni créé sen ay cordon bu kenn taal sen réew waaye itam bu ko kenn yëngal ma ni kon Baye Fall yi nag commencé nañ ko daal def na nga xam ne itam mooy zango Touba ni Touba manifesté ñu ñoom itam menace d'attaque euh, contre les cités religieuses en tout cas bay Fall yi nag ñi créé ben cordon fa nga xam ne itam mooy zango Touba fexé itam bu ñu daal di samé seen ko ville en tout cas ñi ci daal di wo li nga xam ne moo di waa Niassène waaye itam ñu si daal di wo wa Tivaouane daal di def pareil allant dans ce sens yo yo mu daal di exactement ak li nga xam ne

Euh, de la manne en tout cas daal lépp lu mën a am rek jàpp leen itam dëkk bi jamono ji mi ngi yëngu jëm si élection présidentielle pour 2024 réew ko jëm daal di exactement réew mi nag ak seul qui détient les clés ma ni kon Macky rek moo war a mën a li nga xam ne que moo di euh, indi jàmm si réew mi jàmm gi moom rek lay daal dépendre exactement ma ni kon ki nga xam ne que moo di Khalifa Sall nag mu ngi koy invité à ce que mu daal di euh, prendre euh, de la hauteur maanaam mu xam ni président taxajul si kenn waaye tam mu daal di yërëm li nga xam ne que mu di askanam alerte sur une possibilité de alerte sur une possible pénurie de carburant Manikon ni kon suñu maytu rek essentiel daal di ñàkk fii Sénégal en tout cas les acteurs parlent d'une indisponibilité de certains espaces de vente ma euh kon ñu si ëpp na duñ daal ay li nga xam nekk mooy seen station parce que saccage yi nga xam ne itam doon ko gis de partout fa ni investisseurs yi lolou la ñuy daal exactement bëss bi le jour mu dal dik mom bëss bi le jour ak confidence des intermédiaires entre Macky et Sonko pourtant ils se parlent manam diggante Macky ak Sonko ñom ñom ñoom ñaar ña ngay daal di waxtane waaye nekkul waxtaan direct waxtaan indirectement la nga koy daal di amal manam ay intermédiaires yi nga xam ne itam ñoy ñooy ñooy daal di jokkalante li nga xam nekk moo di yi man kon ki nga xam nekk modi Macky ak Sonko nak ngay daal di waxtaan waxtaan woo xam ni itam yaatu loolu ba daal si yegg après manifestation yi nga xam ni itam amoon na fii Sénégal première jàpp nga xam ne mu di le 3 juin ma ni kon euh, blocus bi bis bu ko daal di lever rek peut-être waxtaan yooyu tax na waaye itam waxtaan yooyu tax na itam ba sëñ Moustapha Bassirou Mbacké daal di woo ki nga xam ne mu di Macky Sall ne sa fi itam ni daal di toog autour d'une table daal di waxtaanee li nga xam ne mu di réew mi waaye itam teg leen dialogue tête à tête diggante Macky Sall ak ki nga xam ne mu di Ousmane Sonko le peuple que Dieu me exactement le peuple nak ak les dégâts matériels à Lucas dont chiffre mani koni fi nak fii nag ma ngi justement euh, li nga xamni tam yakuna fa yéema na loolu ba des yegg ma kon étudiants nak len dal togat temps bu yàgg àsaguñ daal di war reprendre li nga xam que modi les cours ministre gu njëkk bu le peuple quotidien li tam bokku na ci ndey nak euh, risque gros la kay xaar nak bari na lool la ngay dal daal bokku na ci euh, acte de nature à compromettre la sécurité de l'état manam yëngal li nga xam que modi rew mi nak loolu la ngay dal daal di toppee exactement ministre gu njëkk le grand panel spectateurs euh, rubrique euh, la une des journaux Les léegi daal sport ak ki n'a